si à tout le monde salaamaaleykum euh, askanu Sénégal salaamaaleykum euh, waa diaspora bi salaamaaleykum aussi tamit ak tous les téléspectateurs yi nga xam ne actuellement ñi ngi seetaan euh, Leral TV ak suñu mbokki internautes yi nga xam ne ñi ngi seetaan leeral point net merci aussi ñi nga xam ne ñu ci rajo bi rajo Leral FM di amaat mbégte ñëwaat fi nga xam ne moom mooy seen émission face ak comme ni ñu ko waxee à chaque fois face ak nag dafa nekk émission bi nga xam ne danañ ci dalal ndaanaan bu nekk ak loo mën a def Euh, dinañ ci dalal entrepreneur entrepreneur bi euh, sportif bi mais en même temps aussi tamit dinañ ci dalal aussi tamit li nga xam ne moom mooy politicien bi euh, tey ñu am mbégte ñëw fi nga xam ne moom mooy fi ñu war a ñëw kër gi nga xam ne war nañ fay ñëw ñu am mbégte dalal ki nga xam ne moom mooy monsieur Ndiack Sarr monsieur Ndiack Sarr kenn du wax politique au niveau du Sénégal te kenn tudd ko parce que mi ngi bokk ci li nga xam ne moom mooy parti bi ñu wax xam nga parti Pastef nekk le coordonnateur Pastef au niveau de la commune de Louga am aussi tamit ay ndombal tànk nekk euh, li nga xam ne moom mooy conseil municipal nekk aussi tamit euh, conseil euh, départemental ñu gis aussi tamit liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci parti Pastef moo tax tey ñu ànd ak toute l'équipe de Leral ñëw fekk si ko si këram ñu nar a waxtaanee aussi tamit li nga xam ne moom politique waxtaan a waxtaanee aussi tamit développement nar a waxtaanee aussi tamit li nga ne moom mooy les élections yi nga xam ne ñu ngi koy waaj ci 2024 bi nar a waxtaanee aussi tamit jaar-jaaram ci wàllum ci li nga xam ne moom mooy politique ak lépp li nga xam ne mu ngi koy def ginnaaw bu ñu nuyoo euh, les téléspectateurs de Leral TV ñu bàyyi ko ki nga xam ne moom mooy notre invité du jour monsieur Ndiack Sarr Ndiack ñu ngi lay nuyu. merci beaucoup Mika euh, maa ngi lay fay euh, di nuyu sa technicien yi di nuyu aussi sa téléspectateurs yëpp à travers le Sénégal la diaspora parce que wax sa bopp nekkul li nga xam ne moom mooy lu yomb suñu émission face ak nag suñ koy commencé nit ki nga xam ne moom lañu invité daf ñuy wax brièvement rek tey su ñu doon posé la question euh, à savoir kan mooy Ndiack Sarr la nga ñuy tontu. waaw Mika comme ni nga ko waxee wax sa bopp moom jafe na mais dinañ ciy jéem rek face à cet exercice waaw Ndiack Sarr c' est un de famille voilà donc euh, deux femmes laa am euh, je suis enseignant de profession professeur de mathématiques et de sciences physiques nekk un acteur politique aussi comme ni nga ko wax cité nga suñu samay ndombo tànk jaar fu bëri ci Sénégal à travers sama parcours. Euh, d' abord sama premièrement ko defee fi ñaan Fimela euh, donc muy région Fatick euh, sama parcours cycle moyen muy CM ma defee ko Kanel au Fouta donc ci Matam parcours secondaire ma defee ko Dakar au niveau du lycée laay voilà donc kon gis nga ne am naa benn tuuti benn melting pot voilà le parcours universitaire ma defee ko lycée à l'université Anta Diop d' abord en physique chimie puis en informatique de gestion à l'ESP. Et actuellement, comme aussi je suis féru de ma discipline, je continue aussi à étudier les mathématiques au niveau de l'université Ibadan Thiam de Thiès. Donc en grosso modo lool mun naa loolu mooy le parcours académique. enseignant la de formation comme ni ma la ko waxee am diplôme professionnel en 2012 euh, professeur certifié de l'enseignement moyen secondaire euh, ñu affecté ma d'abord pour euh, la première fois au niveau du lycée Ibou Diallo de Sédhiou. fa laa nekk jusqu'en 2011 si je ne me trompe ci lañ ma affecté ma ñibbisi fii Louga sama dëkk au niveau du CM Touba Seras plus précisément fa laay officier jusqu'à l'heure actuelle où je vous mhm. mu nekk jaar-jaar bu am solo jërëjëf ñu ngi lay jaajëfalaat euh, tey ñu nar a waxtaan ci li nga xam ne moom mooy euh, développement ak li nga xam ne moom mooy politique wax nga ko yaa ngi def politique Euh, nekk ci parti bi nga xam ne moom la ñu woowee euh, parti euh, Pastef nekk le coordonnateur au niveau de la commune de Louga tey soo ñu doon décrire li nga xam ne moom mooy sa jaar-jaar ci politique lan lay doon et aussi tamit lan moo la poussé nga engagé wu ci li nga xam ne moom mooy Pastef. waaw politique gaa nag xëy na jaar-jaar bu gàtt lañ ci am parce que benn parti lañ mos a xam muy parti bi ñu nekk nii muy le parti Pastef les Patriotes voilà yàlla dimbal nañ nag ba mun nañ ne ci njëlbeenu Pastef lañ ci dugg parce que Pastef 2015 lañ ko créé. 2014 sax du moins mais 2015 la am récépissé am mais ñun ñun naa ñu ngi dugg ci Pastef ay 2016 donc pratiquement kon presque bi ñu taxawalee parti bi lañ ci dugg fii au niveau de Louga bokk ci membre fondateur yi euh, puisque ñoo taxawal Pastef Louga les premières réunions maa ko woote sama kër donc ñu toog di ciy béy suñu waar ba fii parti bi yegg si léegi alhamdulilah ñu ciy sant yàlla nga xam ne koñ boo dem ci Louga am nañu fa li ñu naan cellule am aussi euh, ay co kii nu mu des structures au niveau des communes du département parce que en même temps dañu am mandat départemental ci vice coordonnateur départemental donc fa la ñu nekk euh, di ci béy suñu waar di jéem a indi changement di jéem a def politique comme ni ñu ko xamee jéem a changé nekkinu askan bi ak suñu suñu askan d'abord suñu localité euh, donc li ñu ci poussé nag euh, je crois que ñëpp lu ñëpp war a def la d'abord politique dafa doon loo xam ne dafa war ñëpp voilà donc naturellement jàpp nañ ne nit ku nekk tu aspir au développement et tu as et, et tu aussi euh, un euh, yow mettre ta touche sur ce développement là maanaam da nga bëgg développement mais yow da nga cee da jàpp ne war nga ci def dara waroo rek ne développement bi dañ ko war a def ay dafa am ñu jagleel pour ñu def ko yow tu te poses question lan war a defal réew wala ngay posé wu lan la sama réew war a defal donc loolu tax na ba ñun dañoo mos a jàpp ne réew mi ñu nekk nii duñ fi nekk rek ay spectateurs ñoo xam ne dañ fiy jàngee ci école yi bay jàngale et cetera rek toog nii dañoo mos a jàpp ne ñu nit danañu jéem dara ci réew mi te ñëpp xam nañ ne benn anam rek la ñu mënee changé mbir yi ñëpp bokk muy ci ànd waa aspect politique bi loolu nag moo taxoon ñu yàgg a nourrir un peu ces ambitions là mais taxul ñu dugg ci benn parti donte bi an avant Pastef di am sax xaw nañoo am tuuti euh, sensation yooyu yëg-yëg yooyu mais bi Pastef ñëwee la ñu gis ne le discours ak doxalin beeg yëpp méngoo na ak ñun suñuy conviction ak suñuy ngëm ci lañ ci daal di dugg euh, di jéem nag xam nga rek ba jàpp nañ ne moment bi contribuer nañ ci ci ci anam yu yu faible yu ñàkk solo à la marche du PASTEF au niveau local fii ci suñu localité pour ñu xam parti bi ak jëmmal ko ak aussi jàppale citoyen bi à travers beaucoup d' activités que le PASTEF fait te xëy na dinañ ci maat yoo xam ne c' est des activités de développement des activités citoyennes ñu ciy dugal suñu loxo ay euh, def politique ci parti bi nga xam ne moom mooy euh, Pastef au niveau de Louga en tant que coordinateur est-ce nekk na lu yomb parce que tey euh, Louga tooy am na lu sax changement mi ngi commencé am bu ci njëkk amoon na lu ñu gëm gëmuñu woon li nga xam ne moom mooy changement mais cette fois-ci ngeen ñëw ak Pastef bëgg a andi lu bees est-ce que tey nekk na lu yomb au niveau de Louga monsieur Sarr c'est pas facile tout le monde sait que faire la politique au Louga pour ñu que comme ni nga ko waxee dafa am façon bu ñu doon defee politique fii Louga ñëpp xam nañ ko boo déggee ñu naan la Louga politique xaalis lañ jàpp voilà politique euh, un peu alimentaire je m'excuse du terme da ngay nit boo ñëwee da laaj loo may jox dañ jàpp ne fii acteur politique dafa nekk koo xam ne dafa am lu muy wut soxla maintenant les population mais pour ñu jàppale ko ci mu wut dafa am lu mu leen war a jox ñu bëri conception boobu lañu am ci politique mais jàppuñ ne politique ay nawle ñoom ñooy ànd pour changer seen cadre de vie seen nekkin loolu ñu bëri xëy na comprendre ñu ko woon mais avec le discours aussi du président Ousmane Sonko parti bi ñu bokk nga xam ne c'est un discours transversal bu yegg fépp loolu aussi xëy na gën nañu edewaale bekk suñu def yi politique yomb parce que fi ñu adossé wu d'abord doon na foo xam ne lu bari leeral na ko xam ne politique comme ni ñu ko waxee ñépp a ko war a def politique yonent bi sax da daan politique ci diine bu ñu nekk muy diine islam donc defar la dong pour fexe ba mbir yi baax kon ñépp a ko war a def te loolu kenn waru cee xaar ñu lay neexal wala ñuy jox xaalis wala quoi que loolu fu ko xaar rek dafa fekk ka nga xam ne moom moo ñëw di laaj mandat bi nekku fi pour askan bi mais dafa am moom lu muy yootu donc loolu nag c'est vrai que tax na bi jafe woon na tuuti fii mais teewul dañ ciy dem ndànk-ndànk moo tax boo xoolee suñuy cible les premières jeunes yi la d'abord jeunes yi les moodu moodu aussi yombal nañ lu bari parce que parti bi ni ñu Pastef xam nañ moodu moodu yi doole bi ñu ci am ak ni ñu ci mel te ñoom aussi am na discours bu ñuy def di koy relayer euh, ñoom aussi muy ñëw ba ci seen euh, kii mbokk yi fii loolu yombal na mbir mi voilà ak un aussi ñi jàng Euh, xam nga donc loolu aussi tax na ba mbir yi changé des na nag tuuti ba tey mhm. mais quand même on note des avancées mhm. parce que mun naa joxe benn baromètre muy élection yi passé les élections législatives euh, Louga fii coalition Yewwi Askan Wi moo ko gagné te c'est grâce à voilà la communauté on sait que c'est sous la bannière de Pastef les patriotes mhm. voilà donc kon changement am na te opposition géej na gagné Sénégal législative je crois depuis 1960 lan dama fàtte exactement date mais woon kon changement commencé na am te mosuñ ko woon parti au pouvoir rek moo fi mun a am doole mhm. parce que parti au pouvoir moo yor des moyens de l'État yoo xam ne mun na ko joxe mun na ger nit ñi mhm. alors que ñun c'est un parti boo xam ne au contraire on demande aux populations de contribuer mhm. on demande aux gens de cotiser parce que dañ jàpp ne réew mi ñoo ko mën a defaral suñu bopp yow mi nga xam ne danga nga aspirer un développement yow yaa war a contribuer pour ce développement là ci xam-xam ci say moyens et cetera mm-hmm. donc loolu la ñu gëm loolu lañ jéema a véhiculer nag au niveau des populations jàpp nañ ne am na ci avancer avancées yu yu ama am solo te xëy na sax peut-être mbir mi li naan dem nañ ba ñu ngi traitement mbir mi ñor na mm-hmm. voilà boo xoolee dañ ci gën a ñëw Sénégal euh, li li rumaanaat c'est général fépp la fépp la pratiquement affaire bi ñor fépp la ñëpp yeewu parce que fépp la taal xel yi ba ku nekk politique léegi def nga ko sa mbiru bopp parce que suñu deful noonu rek suñu réew duñ ko sanger bi nga xam ne ñun ñëpp dinañ ci mën a jëriñoo. ok euh, en tant que coordinateur au niveau de la com de la commune de Louga yan enjeu ngay jàkkoonteel ci li nga xam ne moom mooy politique bi ngay def au niveau de la commune. Euh, quand boo xoolee dans le cadre de l'opposition mun naa ne yàppa a une amul amul benn rivalité boobu wala benn opposition bu am doole trop fii Louga boo xam ne xëy na sax mun na dem ba éclipser Pastef ba éclipser peut-être ay action Pastef loolu amu fi. vous dites que amul opposition bi nga xam ne euh, amul leen opposition maanaam lu nga bëgg wax foofu monsieur Fall non maanaam dama xam nga amul fii lu ñu mën a éclipser sunu action luy tax ba mhm. pastef moo fi am amu fi daanaka fii Louga pastef kese nga fiy dégg voilà moom nga fiy gis ay activité am part le parti au pouvoir nous nous animons tout le temps le fii le parti au niveau local mhm. peut-être bi ñu bi euh, parti bi ak eh, problème yi am nii sax xëy na lañ xaw a absenté tuuti ci ci terrain bi mais auparavant ñun ngay gis ñuy def animation de la commune te mm. politique c'est ça noonu la ñuy mandar li koy mandarga mooy l'animation que tu fais te da nga daan gis fii ñuy samp ay cellules di def ay te débat di def ay don de di def ay vacances euh, agricole patriotiques di encadrer fii élèves yi lu ne ñu koy def ay initiatives yu bëri yoo xam ne day tax ñu feeñ effet évidemment aussi kuréel li ñu nekk muy le conseil départemental ak euh, municipal aussi on participe aussi au au débat ak lépp li nga xam ne aussi day jëmal sunu commune kanam ak problème yi fi am ak jafe-jafe yi foofu nag bon yaa notamment tam foofu mun nañ na xëy na foofu aussi opposition bi di nga ko fa xaw a gën a sentir nag voilà notamment yeewu askan bi voilà mais en grosso moom amul jafe-jafe euh, bu boo xam ne fii au niveau local mun nañ ko souligner boo xam ne danañ jàkkaarloog moom mu xaw ñoo mun a mun a mën a éclipse tout wala mu indi ñu problème fii on fait la politique de manière naturellement li ma la waxoon comme le fait population yi Euh, xëy na amoon na benn problème pour nga mun leen a percer ba gëmloo leen yenn discours yi mais hormis ça amul benn jafe-jafe ka on se déploie ça très facilement laa mun a wax fii xam nga mbir yi dañ ko doon def ci anam yu yu extraordinaire di am di avancé yu waa avancé yu rëy ñuy dem ba mun naa ne des bastion sax yoo xam ne c'est des partis au pouvoir fu ci mel ni Kër Sëñ luga euh, moom la ñu woon monté benn cellule bu rëy a rëy ba mu ba mu jaraloon Djibi Diallo sax nga xam ne je crois il est adjoint ñu am fa quelque échauffourées quelques xew-xew fa xemoon parce que on commençait quand même à les noyauter carrément euh, mun naa la la ki nga xam ne moom c'est un des lieutenants de Moustapha Diop mm-hmm. pour dire que rek ñun pratiquement on se déployait de manière extraordinaire fii sans benn contrainte au niveau de Louga. ok en tant que conseil municipal et aussi conseil euh, départemental gis nan aussi tamit euh, li nga xam ne moom mooy au niveau de Louga des fois dañuy gis ñi nga xam ni ñu ngi ci euh, ay conseils municipaux génn taxaw di kaas li nga xam ne moom mooy la gestion de cette municipalité ba j'en suis deux la première moom mooy. barki Demba Ndiaye déggoon nañ ci carburant bi nga xam ni euh, maire bi daf koy 30 euh, millions di mois yi nga xam ni euh, dañ koy génnee def ko ci ñaari oto ab benn conseil municipal ñëw wax ci après aussi tamit y avait yi nga xam ni nit ñi waxoon nañ ko yi nga xam ne dañ koo dégagé woon ci li nga xam ne moom mooy les trois marchés bi ñu demee ba xool gisuñ nañ gis nañu loolu xam ne nekk ay ay wax a wax la amul loo xam ni dañ na yow en tant que conseil municipal est-ce que vous jaaruwul yoon euh, parce que li ñu gis yu ci bëri euh, xeexu Pastef ngay def localité bi aussi tamit ban taxawaay nga ci am. waaw bon euh, bi xam am bu ñu ñu ngi nañ rappelé ne aussi am benn conseil municipal am na bu ñu tardé. Mhm. voilà l'avant dernier. parce que boo fekk na ñu ngi woon woon en détention mhm. mais bii passé ni yàlla dimbali nañu ba bi ñu génnee. ñu daal di ko assister. Mhm. te ci conseil municipal boobu sax lañ doon voté le compte administratif. pour 2022. donc tax te loolu je crois que leeralal nañu lu bari ci li ngay wax nii yoo xam ne gisuñ ko woon voilà xamuñu woon ne que yi am na fi mhm. c'est vrai que le débat du carburant xam nañ ko yëgoon nañ fi am na fi voilà mais beneen bi ngay wax nii les 98 millions yooyu yëguñu ko woon mhm. mais quand même bii nii passé ñu fekkee quand gën na révéler ay failles sur la gestion de la mairie. Mhm. voilà ba ñun sax émission bi passé mhm. ñëwoon naa ci ci anam yi ma defoon au niveau de de télé de la place. Mhm. bañ a bi. ba leeral ci lu bëri bëri. nga xam ne au niveau des recettes am nañ perte presque de 100 millions. voilà au niveau de la mairie de Louga. voilà boo ñëwee même au niveau du de l'état civil aussi pratiquement qui générait ay 37 millions c'est bii passé nii c'est 17 millions seulement que ça a pu générer. donc il y a pas mal niveau même pour les collect les les donc kon mairie bi fii c'est il a une nébuleuse mhm. waaw exemple et même les problèmes des salaires des des des salaires aussi voilà des salariés fictifs mhm. des gens que l'on paye parce que fii la masse salariale si je ne avoisine les huit cent et quelques millions mhm. pour un budget de un milliard et quelques donc kon mairie Louga moom je crois que tout le monde sait que c'est très nébuleux voilà et que nekkaluñ fi askan bi te wax naa leen ko comme ni nga ñun du affaire u rek la ñuy wax comme li ma la wax saison man best session je me rappelle même l'avant la dernière session que j'ai fait avant qu'on Carcer foofu taxaw nañ fa fustiger bu baax la gestion de la mairie de Louga gis ne carrément pratiquement au niveau investissement on s'est demandé qu'est-ce que la mairie a investi à Louga je leur ai posé cette question là parce que hormis les investissements du du PACASEN yi mu fi def nga ay Promoville nga xam ne c'est l'État du Sénégal mhm. amul lenn lu mairie Louga ne lii maa ko fi def waaw et je mais yéen ana lan ngeen fi def toute yi ngeen di jël maire yi ngeen di sonal seen ñuy seen état léegi yooyu yëpp tout ce que vous recueillez mais qu'est-ce que vous investissez euh, à Louga donc gisuñu ko li gën a garaaw sax mooy fii au niveau de de de de de de kii au niveau du du du budget de de l'invest de l'investissement waaw investissement bi dañuy def report c'est-à-dire li ñu programmé woon investir année passée mujjun ko investir ba cette année là dañu donc loolu kon c'est un problème dafay fekk ci avec nouveau budget. Mhm. Mhm. man leen yéen yaxaanal fan la war a mun a am muy ci fonctionnement. Mhm. mais Louga fii da ngay gis ne pratiquement ci investissement bi. lay des une masse d'argent qu'on ne touche pas alors que au niveau du fonctionnement pratiquement lépp li nga xam ne dañ ko alloué le fonctionnement dañ koy consommer donc loolu yëpp on l'a on l'assistance aussi parce que mairie ku ko wax sociale. assistance bi nga xam ne moom la ñuy def pour par ma jël secteur étudiant yi par exemple. dafa tuuti woon dérisoire. ba yàlla dogal na sax ñun dañ ñun ñoo ci taxawoon ba ñu yokk ko mhm. mentionné ko carrément ñu am ci taxawaay bu am solo ba ñu yokkal leen parce que dañu nekkoon ci département bi gis na département avec ses maigres moyens parce que le département un budget qui tourne autour de 400 millions mhm. li mu doon def pour les étudiants quand moo ëppoon fuuf li ñu mairie bi doon def pour les étudiants de luga ñu fustiger ko kaas ko be ñu xaw ko yokk mais même au niveau aussi des écoles primaires y a eu des problèmes mhm. ba temps yi sax defaat nañ tuuti quelques efforts maa ngi dégg keroog ñu naan enveloppe xaw ma 17 millions mhm. ñu ngi ko dégagé voilà ñu dégagé ko pour les fournitures mhm. élèves yi ci lañ leen jox ku ci nekk quelques cahiers mais directeurs yi ñu ngi doon casse au niveau parce que au niveau du primaire aussi gisuñu woon daal vraiment la mairie donc la mairie de Louga jàpp nañ ne nekku fi pour les populations mais dañuy gundaandaat ña fa nekk euh, c'est politique une client une politique lañ ciy jéem a entretenir leen ay salaire mais la population gis seen bopp tey cette année y a problème des problèmes de gestion yu bëri dañ cee commencé am yoo xam ne vraiment jàpp naa ne du lii moo taxoon ñu jël maire bi far ko loolu nag d'une part jàpp naa ne aussi c'est dû à son manque d'implication peut-être de la mairie parce que même session bi passée là il était xam nga boo xam ne li nga li ñu réuniroon foofu yu ama am solo mais nekk fa woon il était à Dakar mhm. son adjoint moo ko présider donc jàpp nañ ne kon kii Louga s'est trompé en l'élisant donc parce que deful amul benn taxawaay bu mu def boo xam ne bii am fës na wala mun nañ mën nañ koy mun nañ mun nañ mën nga ci c'est palpable loo xam ne lii voilà c'est des réalisations de la de mairie de Louga mhm. boo xoolee aussi la dëkk bi aussi gis nga Louga ni mel mhm. dafay taafu ne actuellement tey nii wis na mais suba doo génne mhm. ah, assainissement bi c'est des problème fi ñu doon pavé sax nii bien que comme li ma wax mais mairie bi da koy mbubboo mais alors que c' est du Sénégal mais foofu du daan taamee commencé na comme le boulevard Abdou Diouf boo demee mhm, mhm. et donc maanaam d' étude maanaam ja maanaam je pense que soo waree def dara da nga a dem xool euh, soo defee ba la yan conséquence la mën a jur mhm. donc loolu la maanaam xam nga di jéem a di jëm ut muy gën a baax finalement indi loraange loolu dafa maanaam loolu c'est-à-dire c'est erreur la mhm. comme li nga wax xam nga du ma ci dugg que xëy na domaine technique la mais xam nañ ne loolu lu sooxe la mhm. waaw waroon nañ fexe daal ba loolu war mun a am parce que foo xam ne du daan taa nga dem nga pavé ko muy muy taa am mhm. ay doo stagnante loolu du li gën te Louga partout c'est comme ça les nii de poule gis nga ko fépp yoonu Kébé ndëtt bi ñëpp ñu ngi koy jooy côté ndox Mhm. mais des quartiers comme Medina Salaam nga xam ne ci Louga la bokk ils sont problème un problème d'accès à l'eau mhm. rawatina Réfane mhm. mu ngi ay problème yu rëy rëy amuñu ndox te yooyu yëpp ci Louga la bokk donc kon jàpp nañ ni dafa des voilà vraiment des na lu bëree bëri te bu ñu waxee ñoom li ñuy mbubboo mooy wooy l'éclairage fi ñu goudronné et cetera alors que loolu dafa am fépp ci dëkk yëpp parce que Promoville quand même c'est pas mal de villes du Sénégal lañ fa def ces réalisations ok jërëjëf euh, ñu ñëw ci loolu euh, gis nañ aussi tamit euh, wax nga ko bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom ñoo créé li nga xam ne moom Pastef au niveau de Louga ñu gis en que jeune moom ñu gis nañ ci actuellement on politique yi dañ ci commencé impliqué wu ci loolu noonu yan rôle ngeen am yi nga xam ne war ngeen ko joué en tant que coordinateur au niveau de la commune waaw bon c'est-à-dire naturellement le rôle qu'on est en train de jouer mun naa ne c'est un rôle de relayeur en quelque sorte la jàpp politique man rôle de relayeur comme li nga ko ñun membre fondateur li ñu def mooy discours bi bi ñu ko percevoir comprendre ko xam ko mhm. intégrer ko dañ ko jéem a relayer au niveau des populations voilà fexe ñoom aussi xamal lan mooy PASTEF parce que PASTEF c'est un projet ñu dégg ñoo xamal leen projet bu PASTEF lan la ñu bëgg mhm. muy jël li ñu moom PASTEF loolu moo ko yëkkati Sénégal nekk pour les Sénégalais suñuy ressources ñu koy jëriñoo li fi baax ñu bañ koo jox occidentaux yi mais ñun ñu mun ñoo jëriñ mhm. loolu la mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut mhm. wut ay dirigeants yu intègre yu compétent mhm. parce que xam nañ ne Sénégal dara manqué wu fii daanaka yàlla noppi nag ñun on a pas mal de ressources mhm. zircon y a du pétrole yaa du soleil y a géej a ngi fi naaj lépp a ngi fi mais li ñu manqué mooy des dirigeants yoo xam ne seen loxo dafa set des dirigeants qui aiment leur pays des dirigeants patriotes loolu moo fi manqué donc ça aussi on leur a fait savoir cela voilà teewul aussi ñaax leen aussi ñu xam ne ëllëg réew mi ci ñoom loxo la nekk que ëllëg ci loxo jeunes yi la nekk réew ay jeunes a koy changé mais du ay du ay mag mag ñi seen wéy seen seen wàllu na du ci ëpp voilà mais jeunes yi nga xam ne ëllëg ñoom la ñoo fi war a toog ñoom ñoo war a def yenn sacrifice yi te je crois que loolu commencé naa jàll ba nga gis ne fii Louga Pastef Louga mosul des ginnaaw boo doon jël Pastef national nga xayma ni muy yëngatoo maanaam ni muy doxee mhm. toujours da ngay gis Pastef Louga di nekkaale aussi au devant de la scène ne ñoo ko créé parce les jeunes ont suivi looloo tax ba xëy na Pastef Louga ñu mun koo dégg mun koo ràññee au niveau national ñu xam ko xam ay responsable am loolu c'est parce que y un travail boo xam ne fii mujj na aboutir ba ba ba ba mun a kii jëmal loolu noonu macha allah njaag ci loolu ñu ñëw ci li nga xam ni nga ñëw parce que wax ngeen ko vous étiez en détention euh, je salue aussi tamit euh, suñu copain Abbas Boubou Ndiaye euh, mi nga xam ni je pense qu'il est actuellement nous suivre tey coow commencé woon bari moment bi nga xam ni Sénégal mi ngi am problème Euh, le président Ousmane Sonko ñu jël ko dugal ko ci prison bi euh, Ndiak Sarr Abbas Boubou Ndiaye ñi nga xam ni euh, il font partie maanaam ma bokk na ci ñi nga xam ni ñi ñu gën a ràññee ci Pastef quoi comme dire nañ ko wax à un moment donné gars yi ñi gars yi jàpp Ndiak saar ak ki nga xam ne moom mooy Abbas Boubou Ndiaye tëj ci kaso bi est-ce mën nañ ñëw ci détention détention yi nga xam ni yow subir nga ko waaw mais li nit ñi di wax que ni Ndiak Sarr ak Abbas ñoo doon wax xale yi nañ dëkk bi nañ génn nañ génn taal nañ génn tëj dama bëgg ñu leeral ko parce que on est leeral fii dafa lépp dafa war a leer. bon je crois que Pastef moom du ñu dégg benn responsable naan xale yi taal leen wala quoi que ce soit voilà Pastef benn moo la ñu woote woon fii te loolu c'est un moo boo xam ne da ngay dem fekk ko ci constitution bi muy la résistance qui est un droit accordé par la constitution parce que on est parti républicain ministère de l'intérieur jox ñu récépissé kon lépp li ñuy def dañ koy teg ci loi ak yoon donc à part ce mot là amul lenn lu responsable Pastef toog di woote lu engagé Pastef bu weesu loola noona donc newuñu kenn kaay taal parce que sooy taal li nga moom boo ko taalee yow yaay perte voilà à Louga y a pas ici gisuma fi lu fi li fi état bi def sax pratiquement souvent gars yi loolu la ñuy wax ñun la Louga li fi tane bàyyi ci li bokk fi def et les immigrés voilà donc Louga aussi côté boobu c'est c'est pas mal loti en matière d'infrastructure on est mal loti mm. il y a absolument rien du tout mais c'est vrai que les jeunes comme fépp au Sénégal ñoom aussi toog nañ benn moment am lu leen naqari wane seen bopp comme ni ñu daan def génne taal barricade et cetera te loolu Sénégal fépp la amoon mm. te li ko indi woon ñëpp xam nañ ko mm. koo tere manifester marche pacifique finalement dafay taxaw jàmmaarloog yow loolu moo indi loolu yàlla dogal nag bi loolu amee pratiquement dañ doon dagg bopp responsable yi partout. Mm. parce que bi ñuy arrêté gis nga ne yemul ci ñun c'était une vague d'arrestation partout au Sénégal. voilà yàlla dogal na comme li nga wax ñoo gën a ràññeeku ci parti bi fii ñu xam ñu fi xëy na loolu tax ñu gën a nekk ay cible euh, par rapport à ça parce que xamoon nañ sax yàgg nañ ñu ciblé. Mm. pour dire que c'est des arrestations politiques c'est des détentions politiques loolu moo tax ñu téye ñu la preuve bi ñuy bàyyi 3 mois sursis 3 mm. mois yañ fa defoon la te jusqu'à a des gens là-bas qui pour presque des mêmes motifs jugé guñ leen ñu nga fa xam naa il vont faire pratiquement peut mois là-bas donc loolu je crois que loolu moo taxoon ñu ñu jàpp ñu fa ñu tamit ñu accepté ko it parce que xamoon nañ ne quand lii ñu engagé wu quand même ça nécessite des sacrifices mm-hmm. ñun bañ nañ ko ba on li ñu suñu bàkk mooy le don de soi pour la patrie joxe sa bopp pour sa réew mm-hmm. parce que xam nañ ne il faut qu'une génération se sacrifie il faut que loolu am voilà maanaam bu ñu def affaire wolof naan euh, na nga ko fekkee mm-hmm. voilà non non non nanu xeex pour suñu ëllëgu doom parce que ñun ñi ñëpp bu ñu neexoon tey man ma ne fonctionnaire la maa ngi je suis un agent de l'État professeur mathématique la mun a officier waale dem ci privé bi et xam nga mhm. donc ça va donc mënoon naa wax man voilà sant yàlla quoi ah. lu waaw neexul mais yaa ngi dund mhm. après nga jaamu yàlla jeex na mhm. yenn risque yi mënoon na ma ci bañ a fekk mais damay toog xool samay doom ëllëg ñoom samay bokk sa cousin wala yooyu nga xalaat ñoom seen ëllëg nga xa nga gis ne yow maigre sens bi nga am nii nii ñoom naruñ ko am ëllëg loolu moo motiver ñun ñu gën a xeex ak suñuy élèves yi ngay nekkal aussi di leen di tàggat di leen di jàngal gis na ñoom aussi après dinañ am yeneen jafe-jafe mooy des difficultés d'insertion wala sax des fois bu ñu xawee jàng bi pour les motiver des fois te disent mais après mun nañu am seen diplôme mais insertion day doon problème nga gis ne kon au-delà de ça il faut kon nga engagé wu à un autre niveau muy au niveau politique donc loolu moo moo gën a indi loolu donc ñu xam ne nag loolu li ma wax nii lu ne danaa ci xej tëj mën na la ci fekk am na ñun ci rey am na ñu dee ci ci ci combat bi am na ñun ci gaañ xam nga am na ñun ci tëj yàlla dogal ñun xëy na ñu bokk ci ñu ci tëj bàyyi ñu te am na ñu des ba tey donc xamoon nañ ne loolu war na mën a am te projet bi je crois président Ousmane Sonko à chaque fois da ko doon fàttali nit ñi mu ne leen fii bi li ci gën a tuuti mooy kaso am nañ ci ñàkk seen liggéey ñu rajee la ci et cetera et cetera donc loolu kon teeloon nañ ko intégré ba nga xam ne natt bi bi mu ñëwee dañ koo accepté xam ne lii moo ji suñu wàll ñu nangu ko nag avec dignité xam nga ak gëm yàlla xam na aussi prison aussi ña fa nekk gënuñu leen am na ñu ñu gën ñu fa ne bëri na ñu nekk prison ñu gën ñi ci biti mhm. loolu loolu parce que prison du question ku bon a fa ne ñun gis nañ ne sax am na sax ñoo xam ne dañ leen tooñ ñu dugg fa maanaam erreur de jugement it am na fa mhm. am nañ parce que gis nañ ñu fa nekk deux ans dem ñu jugé la bàyyi la ne la defoo dara et cetera et cetera ñu xam ne kon lii jombul kenn ay yonenti jaar n fa donc bi ñu feeñee ñu am na sax xëy na ngëneel yu fi war a mën a am peut-être yoo xam ne yi ñun peut-être dañ fee ñëw pour taataan loolu jël ko noonu lañ ko jàppee ci loolu dama koy dama lay euh, dama lay relancer waat beneen question par rapport ak euh, li nga xam ni moom mooy trois mois de tension yi nga xam ne am nga ko euh, est-ce que mën nañ considérer loolu benn mission de un de deux aussi gis nañ bi nga fa nekkee yàlla def na ni sa jabar mucc nga tuddee ko ki nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko lan ak dund ga biir kaso est-ce que nekkoon na loo xam ne ak nit ñi nga fay fekk loolu noonu laa bëgg nga nekk telle que li nga xam ne moom mooy les téléspectateurs ñu xool parce que vous êtes euh, am na ñoo xam ne ñi ngi xaar pour ngeen waxal leen ak euh, li nga xam ne ñu ngi koy dund foofu monsieur Sarr waaw xam nga dinaa njëkk a tënk benn mbir mooy euh, toujours moom seen problème damaa toog ba li ma leen njëkk wax mooy problème yi mooy man leen yéen li ngeen di jànkonteel fii daanaka mooy li ñuy xeex parce que j'ai découvert quand même injustice dëgg prison la am mhm. waaw donte donte fii am na injustice mais injustice dëgg mu nga prison mhm. voilà parce que am na ñoo xam ne def na xamuñ xooluñ sax def na wala defuñ mais dañ leen mandat de dépôt bàyyigum leen fa ñu toog deux ans kenn atteegu la nga toog fa mhm. waaw nga xam ne maa ngi ñëwoon ci kaw viol bi par exemple la criminalisation du viol donte loolu lu ñu war a réprimer la mais dafa mel ni quand même euh, ni ñu koy appliquer ça pose problème voilà jural na maanaam ñu bëri actuellement boo xoolee boo demee ci kaso bi ah ñun jàpp nañ ne daal fees presque li feesal kaso yi loolu xaw na cee bokk. Mm-hmm. parce que on a vu pas mal de gens yoo xam ne ñii. Euh, dañ leen jëñ viol automatiquement ils ont été mis kii en mandat de dépôt. Mm. ñu def deux ans kenn demu ci enquête. loolu quand même un phénomène boo xam ne dañ ko noté au niveau des prisons. noté mm. na fii au niveau de la prison de Louga. Mm. voilà d'ailleurs bokk na sax li nga xam ne day attirer en fait sa attention te jàpp nañ du tabou dañ ko war a wax. la plupart des gens c' est des problèmes de viol dañ leen man viol lañ ma jëñ ñu indi ma fii def naa fi un an deux ans mais demaguma enquête. donc euh, daal gis nañ ne aussi fii donte ñu ngi koy jooy ci biti ni mu sooxee fii pour nga jël kaaw président Ousmane Sonko bi et cetera détenu politique yi ku ma am ku ma am ndey bi mais boo demee au niveau des prison quand même les lenteurs quand même loolu moo lay njëkk a frappé y a beaucoup de gens qui sont là enquête sax demaguñ ko te ñëpp xam nañ ne les conditions au niveau des prison li yàlla xam doy na ñun précisément bi ñu xam fii Louga moom euh, dafa xaw doy waar voilà conditions yi doy na waar lool keroog maa ngi koy wax ci benn émission sax ma ne si je salue quand même les gardes nga xam ne vraiment ils sont très professionnels ils sont très humains mm-hmm. mais quand même les conditions de vie qui dépendent de l'État du Sénégal sont quand même très très très très euh, précaires mm-hmm. voilà donc ay matela yoo xam ne mm, deux personnes pratiquement ñoo ci war a tëdd wala benn nit ñu def ci cinq personnes mm-hmm. xam nga une chaleur extraordinaire il y a des chambres yoo xam ne dañoo siiw ngir conditions yu métti ñu leen di wooye ay chambre sept chambre huit foofu vraiment on entasse cinq personnes si quelques mètres carrés nga xam ne nit ñi dañuy fees del des fois tàngoor bi da leen gis ñu ku nee ngi téye sa uppukaay. Mhm. vraiment da ngay waaru c'est vraiment inhumain daal ku ko dundul daal dëgg mënu la mënu la ko mënu la ko xamal. Mhm. voilà donc ñu doon ñaan nag vraiment loolu aussi état bi taxaw ci parce que quand même jàpp nañ ne euh, comme ni ñu koy waxee lu ci ëpp dañ naan maison d'arrêt et de correction. Mhm. donc foofu nit dafa war a mun nekk ci ay anam yoo xam ne yi des conditions humaines. yu nite mais dafay gis ne fee conditions yi dafa xaw a doy waar. donc xam nga euh, les toilettes donc y a pas mal de choses yoo xam ne daal euh, nit ñi war nañ ci bàyyi xel tuuti ñu génn leen a gëstu ba mun ko amee la bu la lekk bi aussi c' est vrai que dafa xaw a doy waar donc voilà soo amul daal ay moyens bi nga xam ne moom da nga mën di ñu lay indi lekk sincèrement lekk bi foofu la yàlla xam doy na voilà donc euh, moo tax daal loolu xëy na bokk na ci li nga xam ne moom bëggoon nañ ko wax te aussi comme ni nga comme ni nga ko waxee ëpp prisonniers yi li ñuy gën li ñuy jàpp mooy yow boo génnee di nga nekk seen ambassadeur di nga mën a casse un peu pour ñu améliorer seen condition mais comme li ma la waxoon njëlbeen bi man je me voile pas la face maanaam du ma na du ma dama leen di wax li nga xam ne lii mooy man li ma gëm man dama leen ne lii c'est le système man leen ni ngeen gis fii ngeen di joytu la fekk woowuñu leen xam nga pour yóbbu leen enquête gaaw leen juger leen ñu bàyyi leen fii man leen lii c'est le système ci ñun loolu la ñuy xeex man leen pour que ñu am ay prison yoo xam ne yii c'est des prisons kenn ñaanu yàlla dem fa waaye nag ku fa xasa dem nga mun fa nekk ci anam yu jaar yoon man leen dama jàpp ne il faut changer intégralement le système mm-hmm. voilà man leen problème wu système wax dafa am bi yéen da wàll muy prison yi ngeen nekk nii et cetera et cetera donc loolu doon na loo xam ne daal euh, man loolu laa gëm loolu laa jàpp il faut changer intégralement le système bu ñu changer le système problème prison yi aussi moom it danañ ko mën a changer mais tant qu'on ne le change pas c'est pas avec ce régime là que les sa euh, nga sa si aussi tamit euh, am euh, tout tànk loolu noonu mu fekk la ci prison bi loolu na nga dundee tur bi ñëw nga tuddee ko ki nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko aussi. bon loolu aussi c'est vrai que bon mbégte la voilà donte prison moom <laughs> dara du fa naqati ñun sax loolu lañ jàpp mais c'est vrai que jour bi ñu may bi ñu may def mandat de dépôt jeudi boobu la sama ñaareelu soxna si am doom bu góor voilà donc loolu la ñu comme ni nga ko waxee ñu tuddee ko président Ousmane Sonko voilà parce que tur bi moo ko moom loolu lañ jàpp parce que ñun d'habitude xëy na non du question fi ma fekk bon ñun xëy na bon dinañ <laughs> ñëw dans un cadre un peu personnel mais dinañ ci développer d'habitude lu ci ëpp man bon samay turu doom danaa koy jàpp ay weer wala yooyu quoi. voilà des fois nag dama ci waxtaan sama du ma ko wax sama soxna exactement tur bi kan la mais dinaa ko ne par exemple ñaar ñii. Mhm. kenn ci ñoom laa nar tuddee sama doom. Mhm. donc man loolu souvent man toujours noonu laay def lu ci laay def. Mhm. donc sama soxna ne woon naa ko diw ak diw man ñaar ñooñu kenn ci ñoom laay tuddee incha allah sama doom. voilà yàlla donc bu maintenant nag damay bàyyi en général nag bu gënee jege. voilà ci laay am daal mandarga leer ma xam ni en quelque sorte kii moo ko moom kii nga koy jagleel. et que événement yi ni mu demee woon ma xam ne kon kii ci ñaar ñooñu président Ousmane Sonko euh, daanaka kii euh, kii yam la quoi. Euh, tur tur moo moom tur bi.

moom mooy fi ngeen. non xam nga Pastef moom c' est une famille quoi et puis nee naa la projet voilà maintenant au delà de ça c' est que y' la politique c' de la politique. Mhm. donc foog mu am des fois euh, bu ngeen tollee ci yenn moment yi mu am xëccoo yu ndaw yi am ci biir te c' est dans le bon sens comme bu ngeen demee élection et cetera muy am xëccoo boole ci pour une première fois au Sénégal. Mhm. un politique mu ñëw def ay ci investiram mu indi ay euh, primaire et cetera. Mhm. donc loolu noo def mu ay tuuti xicco mm. et je pense que loolu c'est dans le bon sens il faut qu'il y ait de la compétition de la compétition saine loolu moom dafa baax donc loolu c'est vrai que amoon na quelques frictions yu ci amoon fii au sein de Pastef ici au niveau local mais fépp au niveau national mm. mais loolu saana n'a rien à voir avec euh, bu ñu ñëwee autour du projet moo euh, nga xam ne li nga xam ne moo ñu yëkkati tey te mun naa ne projet boobu li nga xam ne moo ñu yëkkati muy changer le Sénégal porte étendard projet boobu mm. nekk ci ay xat-xat ci diggante ñëpp war taxaw heure boobu bu ñëwee on oublie tous ces détails là nga xam ne jàppewuñ ko dara. moo tax moment bi ñu jàppee y a une solidarité extraordinaire donc c' moment sax de les remercier bien vrai que li ko président Ousmane Sonko di waxee patriote kenn du ko remercier da nga koy encourager. Mm. mais quand même on ci seen taxawaay euh, prison bi garde li leen gënoon a marqué mooy le nombre de visites ñun ñu am waa Pastef yi voilà loolu dañu ñun yéen yéenay jeexal suñu suñu kayit yi. Mm. voilà parce que tout le temps les gens affluent. Mm. toppatoo bi aussi les repas. voilà donc mujj bi sax dañ koy bokk ak prisonniers yaa fa ne. parce que y a des repas fànn bu ne jàppale nañu xam nga noo familles aussi la ci ëpp lu bëri yëguñ ko moment boobu setee moom jege woon na tabaski mais y a une solidarité extraordinaire ñun daanaka lenn fekkuñu ci ay yenn frais ak yooyu donc vraiment am na assistance te xëy na yooyu aussi gën na bokk ci li tax ba euh, lu ci bëri doo ko yëg. parce que vraiment tu sens les gens ni ni ñu ni ni ñu leen taxawoo ci fànn bu ne c'est vraiment extraordinaire te ba léegi nii gis nga mu ngi wéy parce que temps yi am na caravane de la liberté buy dem di nemmeeku les familles des détenus léegi bu ma toogee fii rek ñu ngi ma laajaat un peu encore la liste des détenus de Louga pour kit scolaire pour seeni doom donc PASTEF dafa am cette solidarité là te c'est partout fii aussi au niveau local c'est pareil même euh, suñuy avocat c'est c'est au niveau local le parti moo ko jël en euh, kii moo ko jël en mm-hmm. bu njëkk ba au niveau national parce que man njëkkoon nañ ma incarcéré. Mm-hmm. yooyu aussi yooyu yëpp c'est le parti au niveau national moo ko géré tu vois donc euh, côté boobu moom dañuy féliciter encore les militants et les militantes voilà mais nag xam nañ ne aussi lu leen war la en quelque sorte parce que mm-hmm. Sénégal moo ko laaj Sénégal moo ko jar. dañu nekk di am lu ñuy xeex dans un combat politique donc du ñàkk des fois ñenn ñi nekk ci ay jafe-jafe ay xat-xat mais c'est au tour des autres euh, d'être solidaire ñëw jàppale leen te loolu gis nañ ko te tax na ba lu bëri nee naa la yëguñu xëy na jafe-jafe kaso yi nga xam ne moom maa ngi koy élucider mmh. yu ci mel ni condition yeeg euh, condition de de d'alimentation yeeg le fait que même pour se soigner aussi c'est des problèmes parce que il manque de médicaments et cetera nombre aussi pléthorique nit ñi dañoo bëri trop surtout kaso Louga nga xam ne euh, il paraît que c'était pas euh, tabaxuñ ko woon pour kaso mm. je crois écurie la woon xaw ma lan ñu transformé ko donc c'est pas adéquat mm. les conditions mais malgré ça assistance bi ci biti et de la part hormis nos nos nos familles quand même ñu ngi c'est le moment de remercier nos famille respectives may remercier euh, exclusivement aussi sama aw moom aussi foog ma beral ko loxo xam nga bee ko ñaareel du mer moom aussi mu mu taxaw taxaw bu extraordinaire mm-hmm. mais les membres de Pastef aussi ñoom aussi vraiment gàcce ngalaama mm-hmm. voilà mais nos familles comme ni ma ko sama aw mais même mes frères aussi des sœurs et cetera donc nit ñi daal en quelque sort nit ñu taxawoo c'était extraordinaire te loolu bokk na ci li ñu defal dëgg aussi. Mm-hmm. ci kaw loolu ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy au euh, niveau euh, national euh, gis nañ bi ñu jàppee ki nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko génne woon nañ benn c'est clair que ni parti Pastef dañ ko dissoudre ba de gars yi sa dem suñu daan def euh, li nga xam ne moom mooy dañ daan wax dañ daan euh, ex ex Pastef la ñuy wax waaw quoi comme Pastef loolu aussi tamit barki nga xam ne moom mooy euh, li bi dafa jël li nga xam ne moom mooy annulé li nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko bi nga xam ne dañ ko woon waxoon que ni du bokk loolu aussi tamit ban taxawaay ngeen am ci loolu bon xam nga dissolution bi moom loolu këyit la ñu kii rek ab këyit la parce que Pastef quand même euh, c'est un esprit mhm. voilà c'est un état d'esprit voilà donc li ci xol yi kenn mënu koo dindi beneen bi aussi mooy dissolution bi peut-être euh, njëriñ bi mu mënoon am ci ñi ko def mooy yaakaaroon nañ ne buñ ko defee dañ mën a éclabousser la machine Pastef voilà te loolu nekkut amul parce que jusqu'à présent li formé woon structure yi ak yëpp mu ngi fi ba tey mhm. dañul te biñ koy def aussi yàlla dimbali nañu ba mun nga ne la yeggoon en maturation en termes de structuration ba amul fen fépp amul fenn fu amul coordination au niveau de tous les départements du Sénégal section communale yi aussi pratiquement département boo dem am na ay section communale ñun fii Louga c'est 17 communes il y a 17 sections les cellules partout tey boo ñëwee Louga amul quartier bu amul ay cellules mouvement jeunes yi mouvement des femmes magu mouvement doomu daara magu Pastef lépp dafa ne kii ba ok kon boo ñëwee nga ne dissoudre ko en fait c'est pas très administrativement mais li nga xam ne moom la nu soxla muy une machine électorale nga xam ne bu élection ñëwee mu mën a campagne campagne bi ci war mobiliser wu loolu dara laalu ko sa intact te loolu rek moo am solo le reste ay formalité la moo tax cette dissolution la gis nga door c'est rare nga gis Pastef ñu wax ci. Mm. parce que joxuñ ko benn solo yàqaluñu dara. parrainage bi di ñëw on est à là on est très organisé on attend le signal du parti. parce que on déroule nos stratégies aussi donc côté boobu moom amul lenn loo xam ne lii gàllankoor nañ. yaa mm. a nag un recours quand même qui a été fait au niveau de la CEDEAO. def nañ recours au Sénégal lañ def recours mais def nañ recours au niveau de la CEDEAO. beneen bi aussi mooy côté bi nga wax wàllu justice bi justice bi doon na loo xam ne ñëpp am nañu leen naqari parce que le président Ousmane Sonko mooy sénégalais boo xam ne moom kese mosul dem justice ñu tooñ ko ñu jox ko dëgg ñëpp ay xam ne kii dañ koo tooñ Sénégal yëpp mais bu demee kenn du ko jox dëgg ba démb pour une première mu dem au niveau de Ziguinchor un juge courageux intègre qui a pris ses responsabilités a dit droit waaw loolu doon une liesse boo xam ne ñëpp a ko manifester am ci mbégte te pourtant loolu dafa waroon doon lu normal mais dafa doon loo xam ne dafa rare exception la léegi fii voilà loolu nag aussi mhm. tam ah, lu normal léegi euh, gars yi ñu koy jàppee lu normal léegi gars yi exception bien sûr voilà te pourtant loolu mooy liy yoon parce que justice c'est le dernier rempart voilà gis nga pour réew moom pour mu am mu bañ am yenn dévies mu am yenn basculement yi bañ fa am il faut qu'il y ait quand même une justice qui est là à mm-hmm. un certain moment qui dit au pouvoir stop parce que ñeneen ñi quoi qu'on dise c'est des politiques ah ñoom ce qui leur c'est avoir le pouvoir le conserver le président qui est là il a fait ses deux dafa war a dem mais li mu bëgg mooy légué ko mm-hmm. politicien nag des fois ñenn ñi parce ñëpp dañuy dem ba ñoom duñ ko def dans les règles de l'art xam nga donc xam nañ ne que président Ousmane Sonko ba ñu ko jàppee ak lu ci bëri la justice a été manipulée. xam nga liñ ko di daan yu yu jaarul lañ ko teg et cetera te loolu qui est derrière c'est le pouvoir qui est en place finalement exécutif bi moo amoon un dessus sur le judiciaire téye ko di koy manipuler. maintenant nag y a des comme ni ko maître Clédor Ciré li wax une des milliers de magistrats yoo xam ne ñii ñoom suñuy àtte seen la ñuy àtte te dara. mu leen doo leen xoxotal maletu xaalis faale wuñ loolu ñu ngi sargal bu baax comme ni ko ñëpp di defee le jeune juge euh, de Ziguinchor nga xam ne ñëw na atte aqulaay taalaam parce que comme ni ñu ko waxee ko atte fii di nga atte fële voilà qui a annulé la décision de radiation du président Ousmane Sonko sur les listes ce qui veut dire que le président Ousmane Sonko va recevoir ses fiches nous allons pouvoir démarrer notre parrainage déjà sax gàllankoor nañ ñu teg nañ ñu lu dul yoon parce que moment où les autres sont le terrain ñu candidats yëpp ñu war leen mettre au même pied d'égalité ñun ñu ngi ñu tardel waaw mais teewul nag sénégalais yi les patriotes gars yi dañoo denc seen carte loolu consigne boobu jàll na nit ñi teel nañ président Ousmane Sonko seen carte incha allah on va faire tout pour avoir atteindre 3 millions à 2 mille 2 mille 2 millions 500 parrain pour montrer que fii Sénégal président Ousmane Sonko la ñuy jox bopp te incha allah ces élections on les gagnera au premier tour avec lui ok seen taxawaay ci li nga xam ne moom mooy euh, Pastef au niveau de Louga parce que gis nañu Louga euh, politique bi nu am li nga xam ne à chaque fois moom moo fiy euh, dominer mm-hmm. est-ce que yaakaar ngeen taxawaay bi dina xam ne yaakaar na mission boo xam ne mission bu rëy bu leen di xaar non xam nga Pastef c'est dans une logique boo xoolee Pastef en 2017 bi ñuy yi mm-hmm. ñuy am le plus fort reste on avait 400 voix à Louga mm-hmm. parce que boobu si bi la ñu jógee foofu di liggéey di liggéey ba deux mille dix neuf ñëw ñu am fii Louga cinq mille fois élection législative yi nii passé nii ëpp na loolu donc kon on dans une suite logique te nee naa la législative yi passé on a euh, la la la commune bien que c'est avec euh, di quand même le pur mm-hmm. xam nga mais ñoom on sait que ci département bi lañ gën am doole ci ay côté boo demee côté Kër Marsar bi autre mhm. voilà même et même dans le département mhm. l'a perdu ak lan différentiel lu motul mille voix neuf cent et quelques voix kon déjà kon on a fait un bond extraordinaire des avancées yu yu yu surtout législative bi ñu gagné commune bi te jàpp naa ne présidentielle lay gën a encore graaw voilà parce que parti au pouvoir il faut se dire que en général ay local ak yooyu lay faral di gagné fi yenn gagné yi te loolu on peut le comprendre parce que amuloon leadership local bu am au niveau de PASTEF qui était un parti naissant mais quant à élection présidentielle moom on sait nga dana yomb xam ne moom sera très très facile. ko gis nga fii xam nga fu ko teg mooy. gis nga massification bi ñuy def parce que ñun aussi lu ci ëpp boo xoolee Pastef moom dañoo gëm terrain ñoom seen lépp massification la implantation des cellules et cetera fii da ngay dem ba auparavant bi ñuy door a commencé yaa doon toog di wër nit ñi di wut ñoo sampale ay cellules wala yooyu mais le li avant ñu ñoo euh, dissoudre c' est les gens qui t'appelaient pour que tu nga installer ay cellules te koñ yëpp la ak ñëpp la les jeunes aussi ñun édu jàngalekat lañ. dañuy jaxasoog jeunes yi et mais ak marché yi ñu fay dem fépp mais c'est unanime tout le monde le parle que du président Ousmane Sonko parce que dañoo dem ba comprendre ne que voici le leader qu'il leur faut pour en fait changer le Sénégal voici le leader bi nga xam ne ba ñu jàppee ne pert nañ Cheikh Anta Diop perte nañ Mamadou Dieng ñu am nostalgie boobu amoon yaakaar ne ñooñu rek ñoo mënoon a changer réew mi y a un leader naissant qui est venu qui est la synthèse de ces le pays de ce gouffre là yëpp loolu lañ jàpp ak mag ñi aussi jàpp ko muy Serigne Seck ñëpp parce que pour une première fois nga gis un parti buy am sax ay mouvement doomu daara koy door a gis maanaam couche yëpp jël adopté leen pour bu leen ne Sénégal il faut que ñëpp ñëw Louga est-ce que loolu nekk ci Sénégal Sénégal ngay xam ne moom mooy ci parti yooyu noonu effectivement la preuve ñun bi ñu nekkee en prison sax mouvement euh, doomu daara yi organisé nañ ay récital de Coran fii wàcce ay kaamil anniversaire du président Ousmane mhm. ñu ngi fii donc donc Louga kay moom alhamdulilah li fi gis nii amuñu fi benn tiit nekk fii aussi bokk na ci fi nga xam ne danañ ko gagné ci anam bu leer bu gaaw voilà inscription yi passé aussi parce que on avait un programme qui s'appelait War Ndombo nga xam ne amoon nañ benn objectif pour inscrire le maximum de de jeunes dans le fichier électoral ñu bëri sa jàpp nañ ne ñun suñu jàpp yi peut-être loolu aussi xaw na ci bokkaale ce projet War Ndombo la parce que dañ ci defoon liggéey bu ama am solo au niveau des élèves au niveau des étudiants et au niveau de toutes les couches même les marchés mm. mais loolu noonu Louga War Ndombo boobu ci phase yu njëkk yi avant même ñu ñoo jàpp mais Louga lu ci ëpp zone nord ñun jël nañ fi P jël nañ fi 2 pour te li ñu inscriroon ak ci War boobu en jeune voilà te temps yëpp souvent depuis ñu que distribution des cartes yi commencé na on reçoit pas mal de messages de jeunes qui demandent euh, c'est où la préfecture parce que la préfecture Louga dañ ko dem pour dem retirer seen cartes pour dire que y beaucoup de jeunes qui se sont inscrits qui vont aller retirer leurs cartes te loolu aussi ça va peser te on sait que mag ñi nga xam ne aussi donte ñu bëri dañ doon jàpp ne peut-être que c'est des gens yoo xam ne yenn parti au pouvoir yooyu ñoo ci ëppale woon parce que euh, lii daw Louga politique xaalis wala yooyu affaire yooyu ñooñu aussi da ngay ñu ci bëri ci ñoom ils déguer bi jóge nañ fa ñu nekkoon bàbbeeku su ñëw te actuellement changement la ñu bëgg parce que réew mi xam nañ fi mu toll nii nga gis ne actuellement le courant ñëpp a ngi jooy gis nga les denrées c'est l'inflation actuellement bu buñ la nit borom kër yi waxee dépense quotidienne ñaata la ñuy dépenser da ngay tiit les gens ne peuvent plus les coupures d'électricité nga fii courant bi dafa coupé actuellement am lu da nga am lu ngeen créé rek ñuy jaajëfal le technicien là qui est macha allah très ingénieux voilà donc yooyu yëpp fi mu toll nii nit ñi xam nañ ne il faut que nga jëlee fi ce système la pour régler ces problèmes là parce que lii c'est des problèmes yoo xam ne depuis nga xam Sénégal ma xam ko yi dafee mos a yàgg ay prix yéeg di wàcc ay courant buy coupé et cetera et cetera moom mooy seen mission en tant que waa Pastef loolu mooy seen mission maanaam jóge jële nga xam ne moom mooy dund gi ak change système bi est-ce que loolu ngeen ko loolu ngeen waa jaakaare xam nga loolu mun naa ne moo ëpp daanaka du lépp mais moo mooy ëpp ci rôle euh, politique parce que comme li ma la wax les conditions de vie d'abord lekk ba suur euh, faju jàng yooyu ñoo tax ñuy wax et cetera nga mun nekk nga mun après nga mun a jaamu yàlla donc te lekk bi moo ci jiitu nit bu suurulee mënul def dara on sait dara day na marche te actuellement on sait fii les gens fait parce que c'est très difficile de subvenir à ces soble lu muy jar léegi ay neuf cent presque c'est extraordinaire donc loolu noonu bokk na ci li nga xam ne mission la Pastef la mission saw loolu mission saw coalition bi la woon ci législative yi parce que au niveau de l'Assemblée nationale finalement peut après y pas mal eu de problème ba ba xëy na loolu lañ ko waroon xeexee xeewuñ ko mais loolu dooroon na sax ci li nga xam ne bokkoon na ci objectif u Yewwi Askan Wi à fortiori maintenant le Pastef voilà te loolu li ko gën a gën a indi mooy le fait pratiquement Sénégal lépp dañ koy jéggaani voilà non seulement lépp dañ koy jéggaani mais en plus li nga xam ne moo fi baax yëpp dañ koo jox les occidentaux on lem les nga xam ne moom lañ jëloon war nga moo xam ne moom ci lañ war a béy war cee produire yu ñu lekkoole wala gis nga ne léegi on la lègue aux occidentaux boo demee côté Lompoul bi à cause du zircon ces terres là dañ koy foqati ci baykat yeeg te yooyu zone jaune yoo xam ne c'est des zones maraîcher lu ci bari ci légumes yeeg yooyu war a faa jógee ñëw dundal ñu et cetera ba gis ne xëy na looloo tax mbir yi aussi xaw a gën a cher donc loolu moom suñu mission la jàpp naa maintenant nag après des na tam parce que du loolu rek faj bi nii lu doy pan bu doy waar la aussi xam nañ ne Sénégal fii ñi am ñooy faju hôpital boo demoon tey hôpital mais soo yoru dara doo faju urgence léegi ticket bi lan la 5000 francs même ici à Louga voilà sans balaañ laa laal da jënd ay garab soo amul loo jëndee kenn du la laal donc yooyu yëpp c'est des c'est des njàng mi moom dafa parce que la plus grande université du Sénégal jusqu'à présent nga gis université Anta Diop c'est fermé hein? les autres universités c'est la grève à Thiès nga xam ne man xam naa ko dama fa nekkaale nii mais actuellement ils sont en grève ba kenn mënul jàngee ci campus bi donc dans ce pays là Bambey pratique effectivement aussi donc ana moo dox fi mu toll nii tout est aux arrêts dara doxut mm-hmm. te loolu pour le changer ñi nga xam ne ñoom nga dénkoon loolu muy les politiques ñoom ngay changer te ki nga ko jox ki ko ki nga xam ne moo ko yor président Macky Sall indi désastre bi créer jafe-jafe yi ñu nekk nii ki mu teg mooy candidat kooku nee na bu ñëwee man ni ma kiy def loolu laay def damay continuer mhm. kon maanaam jafe-jafe yi laay continuer nii ni ñu dee ñuy dundee nii mu métti ñëpp ñëpp du koy joytu noonu lañ nar a continuer maintenant nag on se demande est-ce que les sénégalais veulent que loolu noonu mun a nekk. ok est xeex est-ce que euh, mission bi ngeen a def surtout ci département bu Louga dina nekk mission bu yomb parce que gis nañ la dernière euh, li nga xam ne euh, na li nga xam ne moom mooy trois ministres yi nga xam ne ci région de Louga lañ jógee ñëpp wax nañ ñooñu noonu ñi nga xam ne moom mooy dernier remaniement bi nekk na remaniement bi nga xam ne c'est juste benn combat bi nga. xam ne gars yi dañ koy def pour que euh, euh, bu yomb mais xam nga ñun déjà la question qu'on s'est posée déjà et mooy ñoom bu ñu demee qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations les ministres là mhm. qu'est-ce qu'ils vont dire aux populations parce que non ma ne parce que lan la wax population pour ñu votel la parce que am nit ki tey boo ñëwee di ko naan wotel ma da ko naan wotel ma parce que lii ak lii laa bëgg a def wotel mhm. ma parce que dama la bëgg a defal lii ak lii wala ñu ànd def lii ak lii ñoom def nañ fi 12 di wax di dige te jusqu'à présent nee naa la te tey non dëggal ma la non xam nga munoo ñàkk am loo def mais li nga diggee est-ce que exactement def nga loolu mais quelque chose quand même l'État va le faire mm-hmm. comme construire des routes et cetera parce que un budget de mille milliards ñu jox la ko mais dina am leen loo def mhm. mais yow est-ce que def nga dëgg li nga xam ne population yi ñoom lay xaar ci yow est-ce que def nga li nga xam ne mooy changer mhm. le quotidien des populations ba nit ñi mën a am jàmm mën a nekk ci jàmm est-ce que def nga loolu mhm. loolu defoo ko en douze ans nga digg leen ko mais ñooñu doo ñëwaat encore nga leen koy dig ñu ñu di lay gëm te aussi am na keneen koo xam ne moom mosaguñ koo jox mais digg na leen lu nu mel dig leen ne dana changer les conditions mais au moins kooku bu ma doon tànn man kooku laay jox sens mais pas yow mii nga xam ne déjà jox naa lay ses sens tu l'as pas réussi beneen bi aussi mooy tous ces ministres là que tu ñu ci ëpp ci ñoom c'est des élus locaux dañoo jiite ñii ay mairie ñii ay conseil départemental mm-hmm. mais xoolal amul ku ci am bilan bu baax defuñu dara ils ne font que de la politique donc c'est pas ces gens là qui vont venir encore convaincre les gens boole ci aussi nee naa la ils vont les convaincre sur quoi ne mooy seen candidat mais kooku du kan du dooku pour Sénégal il est pour la France non parce que tout le monde sait que Amadou Ba c'est le candidat de la France c'est le candidat des des des des des hommes. Amadou Ba lu tax da maanaam nit ki doo jekk-jekk ni Amadou Ba candidat de la France te Amadou Ba moom euh, fu mu bëgg a euh, bëggut a nekk euh, li nga xam ne moom mooy président de la France mais président Sénégal la bëgg a nekk. non xamoo tax ñu candidat de la France mooy. parce que ñoom ñooy exonérer les entreprises françaises Amadou Ba dégg nañ ba tàyyi fii ñoom président Ousmane Sonko. c'était des entreprises yoo xam ne dañoo yoral impôt eh, kii eh, impôt état Sénégal. assemblée rek moo war a mën a baale impôt moom ministre bi monsieur ñu baal leen impôt ay milliards kooku kooku ñooñu la àndal donc kooku ñëpp xam nañ ne Amadou Ba c'est un candidat de la France c'est le candidat aussi des hommes d'affaires maanaam homme d'affaires yi lañ fi nekkal ñi am doole multinationales yi nga xam ne dañuy ñëw yoral ñu ay impôts yu bëri ngacc fii suñuy ressources ñoom ñu baal leen ko ñooñu la fi nekkal mais pas le la là d'ailleurs foo Amadou Ba foo mës a gis sax muy wax jëmale ko la lim fi nekk yëpp boo xoolee mosul am waaw moom dafa am ñenn classe benn classe comme li ñu naan les grands boo demee instant États-Unis moom ñu lay waxal ñoo ñu la fi nar a nekkal donc bu fi nekkee le bas peuple là dañuy gën a trox parce que faalewu leen yëgu leen xamuñ lu ñuy dund mhm. man leer na ma dama boo moytuwul boo ko laajoon ne ko lu ndax meewu sachet am na fi wala ay litre diwlin lu muy jar wala yooyu du la ko mën a wax mhm. parce que c'est des gens qui sont très loin de ce que vive la société voilà donc moom kooku moom amuñ ci benn jot ni kii il n'est pas là pour le pour le Sénégal il est là pour les Français beneen bi aussi mooy ci ay kàddoom aussi wax na ko parce que un jour am na benn interview am bu ñuy suivre mu naan le problème de la France avec le Sénégal c'est qu'il n'y a pas de problème c'est ça le la France moom moo sukk ci kaw réew yi nga xam ne ñoom la coloniser yëpp nekk seen biir muy Sénégal muy ay Côte d'Ivoire Niger bii nga xam ne ñu ngi leen fay dàq Burkina et cetera ak réew yooyu yëpp Mali bii nga xam ne dàq na leen fa. Mhm. mais xam nañ ne dëkk yooyu li indi seen jafe-jafe yëpp France la parce que France day ñëw li baax ci réew mi mu koy jël moom noonu la ñuy def indi seen entreprise di exploiter fii boo xoolee boo demee Bolloré le port moom lañ ko jox ay Necotrans tu vois autoroute à bi daanaka Sénégal lépp. li fi baax ñoo koy ñoo koy exploité. Mhm. donc ça c'est c'est c'est c'est évident que euh, Amadou Ba et pour ces gens là. Okay. je pense que nag c'est ñoom France boobu noonu nga xam ne ñëpp. africains yëpp ñu ngi départiru ci France dëkk africains yi nga xam ne actuellement yëpp ñu ngi ci ay ram temps kii ci ci ay yoonu changé mhm. c'est parce que c'est des pays yoo xam ne France doole boobu mu amoon ak foofu mu leen téye woon mhm. daanaka fexe nañ ba tinki loolu ba didi ko donc kon ñun Sénégal nag du ñu ñëw koo xam ne nekkam ak France jegeyantoo ak France àndam ak France loolu nubbu ko da koy affiché da koy bàkkoo kooku ñu nar koo fal loolu kenn xalaatu ko cette jeunesse ki est là aspire à autre chose un changement une jeunesse décomplexée mm-hmm. voilà ñun dañoo war a demal suñu bopp mm-hmm. voilà développer suñu bopp parce que nee naa la on a tout les ressources humaines dans ce pays fii au Sénégal am pagaay la diaspora aussi qui contribue mm-hmm. pour le partie Pastef am pagaille y a des ingénieurs des produits universitaires domaine boo boo laal Sénégal fa xam-xam am nañ ko muy fii muy fale ressources yi am nga ko mais léegi qu'est-ce qui te reste pour être développé mhm. donc loolu rek loolu donc gëm sa bopp rek la ak waaw nga am aussi un dirigeant boo xam ne aussi am na benn leadership bi parce que je me rappelle coupe du monde bi passé bi ñu interviewé benn dirigeant la Qatar yi ñu koy laaj yéen lan moo tax ngeen yegg fii daane c'est le leadership mhm. kese donc leadership moo tax ñu yegg fa c'est ça mm-hmm. voilà et jeunes là nag ont identifié leur leader waaw mm-hmm. identifié nañ ki nga xam ne xam nañ ne kii ci lu amul benn werante buñ ko tegee incha allah à la tête de ce ci diir bu gàtt le Sénégal va changer de visage parce que wax na leen nan la ko nar defee fan la ko nar a jaaralee te loolu liir nañ ko ñëpp xam ko te incha allah loolu la ni ñu nar a jëfe ci kàttanu yàlla muy teg ko ci bopp réew mi euh, euh, euh, li ñu dese ci li nga xam ne moom mooy émission bi Euh, bariwul ci loolu noonu euh, ñi ngi li nga xam ni moom mooy euh, élection yi 2024 tey wax nga ko sànq ci njëlbeen bi moom mooy parrainage yi nga xam ni Euh, lim nga sax dem nga ba lim ay million quoi qu'on puisse dire euh, au niveau euh, de Louga yan nan ngeen ko préparé aussi tamit yan taxawaay ngeen am ci loolu aussi tamit par rapport ak parrainage aussi tamit tey ni ngeen ni daan gis ngeen di takk ay nan ngeen taxawee li nga xam ne mooy préparé li nga xam non xam nga parrainage déjà ñun dañ ci am expérience voilà parce que fii Louga aussi parrainage dañ ko daan réussir dañ li ñu daan sas yëpp dañ ko daan weesu sax xam nga parce que comme li ma la wax les cellules sont là yaa a des y a des yaa waaw jóg nañu mais teewul comme li ma la xam nga cellules yi loolu aussi day permettre ñoom ñoo yor animation parti politique parti bi ci quartier yi voilà foofu danga fay jàllale message nit ñi tee seeni carte mm-hmm. voilà donc moo tax ci loolu bokk na ci li ñu gën a appuyé wu muy ces cellules là mm-hmm. on va s'appuyer sur ces cellules on s'appuiera aussi sur beaucoup nos mouvements et toog nag après ñu wax carrément naka lañ koy doxale parce que loolu def nañ ko ba pare ba réunion ci tout c'est des stratégies je dois pas les mais waxtaan nañ ci naka lañ koy defaree nga xam ne ci diir bu gàtt on aura le maximum de parrain possible mm-hmm. parce que comme li ma la wax am nañ ci expérience te gën nañu affiner léegi suñuy stratégie parce que yàlla monstre ak ki qui est en train de nous combattre mm-hmm. xam nga kon day tax ba lañ daan def ñu fexe ko préparer ci ñu gën a xereñ encore nga xam ne incha allah bu ñu demee ba euh, le mandataire Ayib Daffé retirer euh, les fiches qu'il faut pour le président Ousmane Sonko. ñu daal di ci jublu. Mm-hmm. léegi jot ngeen dogal que ni euh, jot ngeen dogal comme ni ngeen jotee woon parce que moment boobu ñu ngi wax plan B léegi bi nga xam ne moom mooy Ziguinchor da ngeen dem rek retirer li nga xam ne mooy fiche yi pour commencer les parrainages. non xam nga ñun moom voilà bien que bi ñu demee aussi retirer ji suñuy fiche yaa y a cinq aussi responsables de PASTEF qui ont leur fiche okay. voilà et aussi des candidats parce que mm -hmm. président Macky Sall comme moom bu ko neexee aussi euh, wax na ko ci législative yi mu parrainé cinq candidats su neexee président Ousmane Sonko nga parrainé cinq candidats moo tax mu am cinq personnes yoo xam ne moo leen ne jëli leen seen i fiche le temps que moom muy jot fiche am moom actuellement aussi on attend que avocat yi jot la décision parce que des na ñu jot décision du juge bi. Mhm. pour mun a dem DGE ñu jox leen seen fiche. Mhm. su ko defee moom it ñu jublu ci parrainage u président Ousmane Sonko. Okay. donc ñun parrainage bi am na on a y a les cinq euh, kii qui on retiré le fiche le président Ousmane Sonko parce que tous ces gens là am nañu capacité wu. Mhm. pour voir leen en parrain. te loolu day wone quand même la la la machine électorale de Pastef ak le le fait qui a macha allah un nombre pléthore de militants et de militantes. ok et pour terminer sama dernière question dañ koy yamale ci li nga xam ne dañ koy euh, jëm ci yow ak euh, luga yan euh, taxawaay aussi tamit ak aussi tamit nga am ci li nga xam ne moom mooy la région ou bien la commune de Louga bi nga xam ne fa ngay fi nga nekk. par rapport politique bi ñu ci def je pense que kenn ku ci nekk. Euh, dëkk bi nga nekk bëgg nga fa dara te aussi tamit li nga fa bëgg moom mooy euh, jëriñ ci dëkk boobu noonu aussi tamit ci loolu noonu lañ lay euh, foofu la ñuy jeexlee ak yow tey sa gis-gis ak région Louga ci li nga xam ne moom mooy politique bi nga lan la non Louga moom am nañ ci gis-gis te jàpp nañ ne war nañu mën a contribuer ci yu bari changer mhm. ba commencé ba ñu ngi ci doon ndox dans le cadre politique mhm. xam nga ci parti bi ñu ne parce que dañu gëm ne aussi Sénégal soo koy pour mu changer Louga pour mu changer il faut changer Sénégal Dakar fait Mm-hmm. benn dog gox rek mënut a changer complètement mais liñ naan tam béy sa weyu tànk teewul mm-hmm. fa nga nekk mën nga fa commencer impulser yenn changement yi cadre politique ñu ko doon def mais euh, teewul on a créé aussi un mouvement mm-hmm. boo xam ne le mouvement euh, est composé d'étudiants de professeurs xam nga y des élèves et pas mal de de de de gens des des autres couches et le mouvement d'abord li nga xam ne moom mooy objectif bi c'est lutter contre la déperdition scolaire gis na Louga taux de décrochage scolaire yi ah, dafa surtout surtout voilà mm. te développement mënul am ak ñàkk jàng ñàkk xam-xam donc mm. on a créé un mouvement boo xam ne ci loolu lay yëgu mm-hmm. le mouvement en même temps aussi il faut faire de Louga une ville propre donc nañu lutter pour que Louga soit salubre mm. euh, lutter contre le réchauffement climatique mm-hmm. reboisement Louga danaan am fii je me rappelle ay canal origine kii moo ko daan organisé ah RFI xaw ma lan mm-hmm. genre affaire yooyu noonu mais léegi amatu fi amatu fi à ah. l'avancée du désert surtout donc là aussi on veut aussi euh, agir sur le domaine environnemental donc yooyu yëpp c' est des projets yoo xam ne mouvement bi mu ngi ciy mu ngi ciy dox. même mhm. si début d' année sax on a organisé ay distribution de kits. kits scolaires pour les mhm. quartiers défavorisés Medina Garage. Medina Salam te mhm. daanaka mouvement boobu macha allah pratiquement tous les présidents d'amicale des universités. ñu ngi ci ñu ngi ci nekk fii Louga macha allah pas mal d' étudiants mhm. voilà et beaucoup aussi d' étudiants qui au niveau de la diaspora et cetera ñu ngi dans son mouvement là mhm. ñoom Ndiassa Mbaye ñoom Ndiassa Mbaye quoi <laughs> <laughs> mouvement boobu mhm. bëgg na daal moom aussi indi touche am indi yenn changement yi au niveau de Louga donc kon am nañu gaa ambition vraiment aussi fii au niveau local macha allah impulsé fi yenn dynamique yi voilà ñu xam ne ñun ñoo mën a defaral bopp suñu gox on n'attend pas euh, que que que que quelqu'un ait un mandat politicien là-bas nekk minis wala yooyu pour et cetera non nous qui sommes là avec nos maigres moyens ak mm-hmm. nos maigres connaissances war nañu mun a fexe

bu gën a large yéen ñëpp a di suivre mhm. ah, ci àdduna yëpp mhm. donc loolu aussi baax na ci mhm. ñu xam lan mooy xëy na suñu xalaat ci pas mal de choses gërëm sa technicien yi comme ni ma ko waxee dinaa ko waxaat ak seen xarañte malgré ni ñu débrouillé ba actuellement ñu continuer enregistrement bi di gërëm aussi Sénégalais yi ñuy déglu yëpp voilà donc vraiment di ñaanal ñëpp aussi mm-hmm. Mm-hmm. di am aussi un plaidoyer muy à l'égard des détenus politiques loolu dañ ko maa ngi ko fàtte mm-hmm. parce que presque mille cinq cent détenus politiques dafa ëpp voilà donc loolu vraiment il faut que nit ñi wax ci temps yi société civile mu ngi ci doon dox ba am luñ ci yaakaar mais mbir mi daa mel ni demaat na teg na waxtuñ ci dara te les détenus sont là naa la fii Louga y a d'études gosses de Daaru Musti yu ñu tëj fii à Louga jugé wuñu leen bientôt ils vont avoir cinq mois ñu ne ñoom lañ tëjoon woon ici mm-hmm. et après sinon ils n'ont rien fait c'était suñu politique mm-hmm. ailleurs y en a partout mm-hmm. te ces Sénégalais là mérite d'être libre comme nous ñu ngi ñaan ñu libérer leen ñun dañ jàpp ne dañu war a apaiser le climat social fii ñun ñëpp benn lañ da ngay neex nga nekk Pastef kii nekk APR mais pour man loolu du animosité du dara ku ci nekk da nga am euh, noo jàppee ne yow nii nga war a euh, doxale réew mi fi nga war a jaale réew mi pour développer ko voilà ñii joxoon nañ leen peut-être ils n'ont pas réussi ñun on est là on veut qu'on qu'on cetera loolu warul mën a indi ay animosité voilà donc le président Ousmane Sonko aussi qu'on le libère parce que sa détention là aussi tegewul ci yoon te injustice yooyu moom muy indi yenn yi donc on pense que loolu nit ñi daal waroon nañ ko waroon nañ ci gën a wax nga xam ne ñoom ñooy ay kilifa diine ay kilifa aada ñoom aussi nañu continuer wax ci loolu et que président Macky aussi soit parce que le voilà on pense que moom actuellement moo waroon xool lu muy warloo réew mi mais réew mi jox na ko lépp il est parti de rien il a atteint le sommet. Mhm. voilà il a fait douze ans il a fait ce qu'il donc pour ñun war na ñëw organiser des élections transparentes mais balaa loolu nga apaiser le climat tu libères tous les détenus j'ai une pensée pour Bassirou Diomaye mhm. moom aussi détenu pour des motifs légers à mon avis mhm. nit dof mhm. aussi Mortala suñu mbokk la moom voilà moom aussi au delà sax dañu am ay lien voilà yaayam sama cousine papa la donc moom aussi détention doon lu nu métti mandat euh, déposé na liberté provisoire bari joxuñu ko te sincèrement ce qu'il a dit. Mhm. mais am na ñu wax lu ko gën a te dara fekku leen ci. te moom institution yi c'est saillant dafa métti. Mhm. donc nañu rectifier avant qu'il ne soit trop tard ñooñu ñu bàyyi leen. Mhm. donc di ñaan yàlla daal Sénégal yàlla def jàmm. ñun ñëpp ñu bokk ko ñu am des élections apaisées et que le jërëjëf euh, di ko jaajëfal moom euh, Ndiak Sarr mu nekk euh, coordinateur PASTEF ci fi nga xam ne moom mooy commune Louga ci waxtaan bi nga xam ne amaloon nañ ko tey ci face Euh, comme ni nga ko waxee rek dañuy euh, jël terrain ba terrain bi mars euh, ci li nga xam ne moom mooy notre frère parce que actuellement ñu ngi ci mois d' octobre moment bi waroon na fekk ñuy waaj li nga xam ni moom mooy show aux yeux ñun les les lovers hip hop gars yi nga xam ñun ñi nga xam ne noo bëgg hip hop parce que ni dof place am wax nañ ko à chaque fois du prison c' est entrepreneur un jeune bu bëgg dëkkam c' pourquoi mu nekk prison di ko ñaanal yàlla fu mu nekk

ñi nga xam ne ñoo télé téléspectateur euh, de Leral TV gars yi nga xam ne doon suivre sur euh, sur internet euh, via Facebook ak ñi nga xam ñoo nekk ci YouTube bi merci aussi ñi nga xam ne ñu doon déglu sur Leral FM di jaajëfal aussi tamit moo président mon directeur Ababacar Diop Babacar et merci aussi l'ingénieur de son moom dafa jël tey mooy Real la sol quoi moo tax ma koy xool xool yu bëri yi wala Arsenal la ah, Real la waroon doon quoi di ñaan ñëpp jàmm di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal comme ni ko Ndiago waxee Sénégal amul lu dul jàmm ñun jàmm lañ xam ñu dugg ci élection yi bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin comme niñ ko niñ ko daan defee à chaque année chaque fois chaque année euh, di amaan mbégte euh, seen émission Face ak incha allah comme niñ koy waxee à chaque fois rek danañ ci dalal ku ne euh, njàkk merci ah merci infiniment et on se donne rendez-vous incha allah ba beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf.